amul kenn ku sañ wax naan dangay bett rabbana te moom rekk sañ bette te moo yóbbu pap sidaat amul bi ñu yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu nuyu Cheikh Sidi Makhtar xalif général day xaadar kuntu yi ci ndigalu Cheikh Baydaan almadina ñu koy nuyu di ko ziar bu baax a baax si ndigalu Cheikh Bekaay xalifa Serigne Sidaat Kunta si kilifteeru Serigne Mohamed Abdourahman si turu daayira bi yëpp matin ñu ngi nuyu àddina di jox daje gàmmu Malika le 3 février tombé dixième édition sant Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam te Serigne bi bàyyi loo ñu ko koy ñaanal yal na yàlla yërëm ko jéggal ko xare ko àjjana si ndigalam si ndigalee kilifaam wul du bàyyi si la sose woon daayira bi ànd ko njaboot yi en 2008 ba léegi ñu nekk si di nab nabal di nab nabal ba yàlla weet di tey njaboot bi mu fi bàyyi nag ñooy àggali yéenam googu di sant Seydina Mohamed ñu koy def le 3 février fii si Malika bu ko defee ci ndigalu président daayira bi ñu ngi siy woo jullitu doomu aadama yëpp fu waay nekk rek ñu ngi lay woo si bis boobu noonu la 3 février salaamaaleykum wa rahmatullah ak kër laa dajeeg papa am di mu naan taaw lu xew man